ñi ma xam dëgg dëgg dëgg dañ may woo parfois ne ma Kaliphone ñii xamuñu la mën nga leen jaay coob seen njëkk romb leen nii xamuñu ne jaay nga leen ma ne waxal de ci banlieue laa juddoo yaroo banlieue màggee banlieue ñaari yoon laa dem Fuuta xam nga Dakar rek moom boo fi juddoo rek yàlla dafay def nga am xel waxuma laa nga dëkk ci banlieue boo xam ne précarité bi fii lu ne lañ gis moo tax bu ma gisee waa sonko yi naan wa yi bu ma la gisee buñ la gisee bi ma tegee sama tànk Sénégal ba léegi maa ngi dali fort bés bu ne ma wax leen ko dëkku ma dëkkuma hôtel dëkkuma mariste dëkkuma padois ma fen maa ngi dali fort fii bépp mbindeef bu sonko gënal sa ndey wala sa baay ñëwal kër ñam kalifon nga ne Kaliphone yoo laa ñëw pour dóor ndax benn Ousmane Sonko nga xool ndax duñu la tàggee amul sax demal ñëw yéen moomu leen nit ñi moomu leen dëkk bi ba benn nit bu bëggee wax Ousmane Sonko du doon président di tiit yéen bu ngeen xoolee xam ne doomu cuballo bi tiit nekkul ci moom dee bi benn yoon la man saa baay dee na saa ndey dee na damay dee loolu gam ko def sama bopp day ñëw kay nga ne ma Kaliphone bépp rey naa la nga dee pour nga arrêté di wax ci Sonko ça j'accepte mais Kaliphone ñëw naa pour dóor la non non non non dang may fàtt boo ma faatee de mooy dóor nga loolu moom j'accepte moom moo tax bu ñu toogee ma dégg yenn soi-disant journaliste di ubbi seen gat yi di wax naan wey dañ ko bëggoon dóor kolobaan mais des centaines de personnes si benn Kaliphone xanaa nag léegi man héros laa de centaines de personnes ñoo bëggoon dóor Kaliphone nga demit permanence APR des journalistes ñoo bëggoon door Kaliphone doo dégg ñu ne benn journaliste de wala ñaar de les journalistes wala les caméramans ñoo bëggoon dóor Kaliphone ci benn Kaliphone ngeen ne da ngeen di sot dangeen dee di ngeen mer di ngeen sonn réew mii saa réew baay la sama baay dafa bokkoon ci ñi demoon guerre xeex ba senegal nekk Sénégal ma wax leen ko loolu tey nag kenn ëppalewu ma faran ci biir Sénégal fii laay toog bés bu ma bëggee tukki ma génn dem tukki bu ma bëggee ñëwaat ma ñëwaat amul blocage amul passeport amul leneen bu ma amee diplomatique nag damay jël de ça je di mais dégg ngeen Babacar Kewlo mu ne leen way Kaliphone euh, il va sortir dans quarante huit heures quarante huit heures yaakaar naa ni tey c'est lundi demain c'est mardi mercredi bu neexee sunu borom samedi wala ajjuma dinaa toogaat sama lal bi ci Dalifort ne leen Ouyé Babacar Touré mu se 48 heures pour ngeen xam ne seen nit ñi dañoo mën a fen dañoo mën a duul jëli ji ay filiation xam nañ ne Kalidou laa tudd xam nañ ne Baabali nekk sama no ñu dem collé seen i affaire ñëw génne ay numéro naan way c'est le numéro de son passeport mais nañ leen woon photo c'est le numéro de son passeport mais passeport kay day am photo nit passeport day am ñu bind si république du Sénégal passeport sangam sangam mais ana loolu ñu toog naan leen wéy mu ngi nii Kalidou Ba mais man ma kenn que suis né en 81 euh, euh, xam nañ ne 81 ak léegi 40 ans la xam nañ ne Kalidou laa tudd wan naa leen barki démb sama livret de famille si loolu la nu gis sama livret de famille parce que ñii dañoo mën a fen dañu mën a fen dañu mën fen man man man man vous mentez vous mentez vous comme des renards da ngeen mën a fen fen seen deret la barki démb ba may live dañu ne ma woon si seen live katu Ousmane Sonko yi ñu ne Kaliphone amul jabar France ak dafa dem mairie France ñu rejeté ko mairie France bu la rejeté dina la jox livret de famille mairie France bu la rejeté dina la jox sa livret de famille mairie France bu la rejeté dina la jox lii livret de famille lii lii. léegi barki dem ba may live laa leen defal nii nii laa leen defal nii nii excusez-moi ok xaar ma pose lumière bi nii tuuti. ok barki dem ba may live maa leen ne nii comme dañoo ne mairie def ma rejeté ma ne leen lii laan la du mairie de Poissy lii laan la République française arrondissement Saint-Germain-en-Laye lii lan la département des Yvelines pour yéen niti Ousmane Sonko yi toog si biir internet bi di duulal Kaliphone di fenal Kaliphone man j'ai ma femme mu ngi seetaan live bi lii maa ngi nii xanaa nag bu ma mairie rejeté woon lii lan la du vere de famille xanaa du ngeen ne lii waat maa ko defar comme ne ngeen ay faux document laa yorak yu kenn xamut liir leen jël leen lépp après ngeen capturer dem prefecture bu Paris dem armée française dem lépp lii laa la du livret de famille léegi lii laa leen defal barki dem ba livret de famille mu ngi nii mu ngi nii ngeen liir li mu ngi nii délivrance du livret de famille livre de famille est remis par xawma lan par l'officier de l'état civil patati patata ma ubbi nii ubbi nii ubbi ba def nii nii nii la leen wan barki démb Kalidou Babali époux du père ma def sama kii Dakar Sénégal sama kii a ngi nii nee la 31 octobre 81 lii de la gars yi gis dem takk feni mu ngi nii mu ngi ni sama papa ak sama yaay sen sant ngi nii yéen ñi mën a liggéey liggéey leen lii de la ñu gis ñëw di fen dem defar seen i affaire ñëw génnee naan way numéro passeport bi c'est un deux trois quatre c'est cinq six sept huit mais passeport dafay am photo génne leen passeport diplomatique comme ni ngeen ne gis ngeen passeport vous avez tout de Kaliphone sortez passeport bu état jox Kaliphone boo xam ne am na photo bu ñu def Kaliphone xanaa man sama photo ko ma gis xàmmee ma mais arrêtez de mentir arrêtez de fen arrêté leen bàyyi leen seen feni bu ngeen amee passeport bu xam ne dangeen di koy ñëw teg ci internet bi ngeen gis ñu bind si république du Sénégal Kalidou sangam sangam ngeen gis photo Kalidou sénégalais daal di gëm ne que état jox na ma passeport diplomatique. mais seeni ay double créé ay kii nga xam ne tey boo demee sax ordinateur mun nga bind Kalidou nii numéro passeport kii loolu ngeen di wane. passeport kay talon la talon def nii sama passeport bi moom ngi nii. lii de am naa ko bu dee lii nag si diggante bi nekk na nekk na diplomatique alhamdulilahi rabbil alamin di lii de la am comme passeport yàlla na seen ñaan nangu nag passeport boo amee day def nii am tur am sant visa ya mu ngi nii te du toog fi sax di wane ngeen ya ngeen di dee seen xool di métti di bon am na si yéen ñoo xam ne amuñu sax kayit juddu bay am carte d'identité bay am passeport si yéen ñi yor xol bu bon bi du ngeen ko mës a am ngay kay def leen vidéo def live ne gars yi Kaliphone passeport diplomatique am a ngi nii ngeen def nii ubbi ne photo Kaliphone a ngi nii Kalidou sangam sàngam après sénégalais yi gëm mais ngeen dem di takk rajo yi di fen naan Macky Sall jox na Kaliphone passeport patati mais même bu ma ko joxoon dama koy sant dama koy gërëm bu ma ko joxoon c'est juste pour dem voyager passeport diplomatique mënul yóbbu nit àjjana passeport diplomatique mënuñu la ko jox nga dem si gab bi nga bës bu bouton xaalis génn passeport diplomatique mënuñu ñu ko jox nga jékki-jékki bëgg a gis sëñ Mountakha Mbacké nga ñëw ne passeport diplomatique laa yor sëñ bi laa bu gis ñu ubbil la déedéet passeport diplomatique boo ko amoon ne 100 mètres la bu gis luy passeport diplomatique kon pourquoi vous fatiguez les gens di sonnal nit ñi di yuuxu di takk rajo yi di live parce que bu ngeen live si Californie y a des yoo xam ne seen cerveau yi dara nekku si dañuy ñëw toog di leen seetaan ngeen di fecc di wëy parce que Californie la ñu bëggal toroxtaan ngem kaay leen déglu dañ ko bloqué vous avez dit depuis cinq jours Californie dañ ko bloqué tey ngeen ñëwaat naan Californie euh, a été débloqué mais sortez bala ngeen génne video boo xam ne Kaliphone nee na si nii passeport wala photo boo xam ne Kaliphone nee na si nii passeport c'est facile et bu ma ko amoon it jël bañu ma ko de wax dëgg fa te seen ñaan it yàlla na nangu yàlla na ma dal seen ñaan yàlla na ma dal yàlla naa ko am bu ma ko amul duma ma si daw duma si jooy duma ma si tëb parce que du passeport moo may dugal àjjana du passeport moo ma mën a jox alal encore une fois di nga gis ku yor vingt passeport diplomatique si poosam amul lu mu ndekkee suba c'est quoi passeport ngeen bëgg sonal nit ñi naan rajo yi ngeen di taq président Macky Sall nii président mak Sall naa ngeen di toog di duul naan Kaliphone ba mu ne mairie dañ ko rejeté ku dem mairie doo am livret de famille ku dem mairie duñ la jox certificat de mariage ku dem mairie doo am doo am doo am copie intégralité ak yeneen ak yeneen di ngeen dee man samay document mu ngi nii lépp mu ngi noonu ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca déclaration impôt ya mu ngi noonu waaw ngeen toog di ubbeeku rek di fen rek waaw waaw ba ca déclaration impôt la lépp ngeen di fen rek di wax rek bëgg teg tëngéej bëgg xam Kaliphone lu mu añee tey bëgg nekk Amérique bëgg xam Kaliphone lu mu ndékkee mënul nekk man bu mu leen waxul sama vie mënul leen wax ba xam sama vie mënul booy bi ngeen amal affaire de booy Dalifort bi daaf ghetto bi